asalaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen ñu ngi nuyu fii ci kër Rahma seen waañ seen fin moo ñëwaat di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñ bopp di ko ñaanal képp ko saxoo seen waañ seeni fin bu ngeen gisee lañ leen andil rek tey jën lañ leen andil ñu ñëw defar leen suñ lakk jën rek ànd ceeg Rahma Espace yi bàyyi seen waañ nokkas yeeg épices yi macha allah soosu kaane yi lu ngeen ci bëgg rek bu ngeen ootee ci numéro yooyu rek di ngeen ko am bu ngeen gisee nag tey ñi ngi jël épice jën bi jën la ñuy togg jël épice jën bi rek war kaa mariner macha allah liñ leen di wax rek Rahma Spices guu la guu yu guu yu neex daal guu yu am solo la leen andil macha allah épices yi neex na saf na macha allah di nga am couleur bu rafet ci sa togg dina ko jox guu bu neex macha allah di leen di wax def nañ suñ ñaari kuddu nokkas sorti suñu épices def tuuti diwlin diw bu yam rek ngay def pour nga mariner ko macha allah dañ koy dugal ci fuur bi moo tax nag ñu mariner ci biir ak ci biti yëpp macha allah def sa nokkas def sa raxma spice am na ci solo daal macha allah ma ne ko ci am na solo nga def biir ak biti ëlbati ko macha allah bomb ko ci biir dugal ci tracé yi yëpp daal kis ngeen niñ koy defee. jën boo am rek mun nga koo def ñu douze bi lañ jël rek defee ko ko waaye boo am rek macha allah rek mun nga koo defee sa lakk jën ji ma ne ko danga am sa lakk jën bu neex bu saf boo ko ànd ceeg Rahma Espace si bâche seen waañ di wax ni sa sa jën daal xam naa ne dina am gu lépp looy togg lu am jën rek boo ko defee ci épice bi macha allah di nga ko yëg ñu ñëw mariner waat ko gis ngeen ko dugal ko ci ruq-ruq yi fu nekk rek macha allah ngay dugal sa loxo rek. def sa jën ba nga xam ne ne lii nii boo ko gisee rek xam ne macha allah saf na gis ngeen couleur jën bi génn na macha allah am na guub léegi ni ñëw rek def ko ci suñ fi nga xam ne nii fi dañ koy lakkee rek xorom daal ngay dolli si épice bi pour dee da nga bëgg kaani tibit nga def sa kaani waaye nag ñun nag kaani bi dalu defuñ ko tey dañuy bàyyi rek noonu jën bi bu ndaxte dañ koy booleeg soosu calamar bu xonq ñu ñëw wan leen suñ soos bi rek macha allah niñ koy toggee après léegi teg nañ ko si kii bi booy teg nag mun ngaa def tuuti oil si këyit bi daal fi koy tegee bu nga xam ne du tax danga ko ëlbatiki te du te jën bi du tas macha allah di nga am lakk jën bu neex bu am solo ñu ñëw rek dugal ko nag ci fuur bi ñëw defaraale suñ soos bi gis ngeen suñ marine macha allah ma ne ko macha allah léegi soos bi da ngay am soble tamaate sipax calamar tamaate bu la neexee nga def sa sauce bu weex bu la neexee nga def sa bu xonk ñun nag sauce bu weex bi lañ taamu tey macha allah def suñ calamar ak rosi ko noonu def suñ kuddu nokkas bi rek raxma espace macha allah ay nokk sama am na solo def suñ ñaari kuddu nokkas wala sa benn kuddu nokkas yow yaay seet loo xam ne nii rek. noonu nga koy toogee rek nga def ko léegi ñu rosi ko ba nga xam ne nii jaxase ko ci kii bi mook kalamaar bi ba si kanam soog a ñëw yëngal-yëngal ba nga xam ne nii macha allah sa xetu rosi yaa ngi koy mu ngi ubale ci kër gi nga def sa tamaate lu xati bu la neexee mun ngaa ñaaka def tamaate waaye ñun nag tey soos bu xonq bi soos bu xonq la ñuy def def ko suñ soosu kalamaar bu xonq bu saf macha allah mu accompagné rek suñ lakk jën bi nga xam ne nii tey moom lañ leen andi ànd ceeg raxma espace bay seen waañ macha allah amatina solo def paprika bi gën a doon lëwe sa xonq rek ba pare da koy jox guubu neex man ko da koy jox guubu neex ñu yëngal suñ kii ba nga xam ne nii pour bu mu jàpp rek moo tax ñuy yëngal. bu dogee tuuti rek nga ñëw def sa soble bi mun ngaa def soble sotti gis ngeen ko def nañ suñ soble dagg ko suñ dagg bu sew sànni ci yi ngeen ci gis noonu kaani salaat yi lañ daggate rek mu ne moom lañ daggate boo am rek mun nga koo def def ko noonu macha allah soos bu sax bu neex lañ ko def noonu yëngal def bineegar def tuuti ndox dolli ci suñu épice bi nga xam ne nii Rahma Espace moo ko defar yëngalaale ko xet bi ubale na ci kër gi macha allah am nga góob bu neex soos bu neex bu sax macha allah moom leen leen andil yëngal tuuti bàyyi ub tuuti bàyyi ko ba si kanam rek ñu ñëw yàkkal li nga xam ne nii ñu ngi leen koy andi rek suñ lakk jën bi def tuuti poobar bu la neexee nga def sa kaani xeeñ bu la neexee nga def sa kaani sunguf léegi ñu ñëw tëmbali suñuy sipax yi nga xam ne nii moom lañ ak àndat def sipax bàyyiwaale noonu non ubra boo defee sipax yi mun ngaa ub parce que sipax moom dafa gaaw a ñor boo koy def rek boo tëjee rek nga gis ne couleur bi changé na di nga am ñor bu normal bu neex macha allah léegi ñu ngi xaar tuuti rek suñ kii bi pare Rahma Espace lañ ci àndat bàyyi seen waañ dawli tuuti sa xorom suñu épice boo ko defee xorom la ngay dolli doo dolli leneen lu dul xorom macha allah amatina solo suñ soos pare na macha allah couleur bi rafet na am na goût neex na may nañ ko soppe yëpp nag képp ñu ñuy seetaan rek macha allah ñu ngi leen koy may di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñ bopp di ko ñaanal képp ku safoo seen wañ seeni feem di leen wax suñ lakk jana ngi noonu pare nga yéena ko moom kon nag ba beneen yoon ak yeneeni feem fii ci seen waañ seeni feem jaa ngeen jëf